Ah, ñu ngi toog ak bal Balde fekk ko fii muy relax samedi samedi relax Ama tey lu xew ba nga toog sa koñ. ah maa ngi lay. ah tey sama sama pël fuuta bi. waaw mooy njënd Abdourahmane Diallo. ah ma mën pël fuuta ay kal lañ. waaw Balde ak Diallo ay kal lañ. Ah. waaw xam nga war a nekk. dëgg la moo tax tey ana laax bi jeex na wala. laaxu pël fuuta yi moo ñu mu ngi ñëw <laughs> ku rey nag bi dégg naa yaa rey nag wala seeraas. a fees. waaw ah. maalo loo si def da ngaa jàpp tànk. waaw jàpp tànk après. ah, ah mais dañu gis keroog benn vidéo yog booy ñaar deux ngeen nekk si benn salle. Hmm. da ngeen non mosuñoo xuloo mosuñoo jote dara. ame ah, mais neexul woon lu xew. non non xëy na yoon yee bokk woon day préparé ne ma préparé nii waaye benn lañ ñëpp xam. Ah. loolu dong la xam na rek. Ah. mais est-ce que du ñu boo ngistal waaw ah man nag waaw dama leen wax naa leen lu leer dama leen lépp lu ñuy def rek. Mhm. nañ ko defee xol. Mhm. nañ ko defee loo xam ne sans hypocrite. Mhm. ñëpp ñoo far comprendre. waaw parce que bu fekkee bu fekkee tey dañoo def def hypocrite. bu subaa day feeñaat rek. dëgg la waaw kon nañ ko lépp si fair play xam ne ñëpp ñoo far. ñun ñëpp couleur Pikine la ñuy défendre. mënuñoo wax a wax a wax a wax a wax a wax. ba défendre club Pikine. dëgg la ma leen mënu maa wax a wax ba ñaanal boo ñaay mu am safaan bu amee safaan man su ma jénnee. ëllëg dañ naan waa Pikine lañ daan waaw kon ku nekk rek war na moytu loolu mm-hmm. parce que Pikine nañu ñor ñun ñëpp mm-hmm. waa intérêt personnel tamit ni ku nekk tamit booy ñaanal sa bopp lay ñaanal mm-hmm. xam na man su may julli sa bopp laa ñaanal pour yàlla may ma jàmm waaye tamit nañu xalaat tamit Pikine nañ suñu ginnaaw ñun ñëpp est-ce que yéen ñaar mu ngeen bokk mbalka Oh. yéen ñaar est-ce que mën ngeen bokk mbalk parce que ñaari kuy ngeen waaw ñaari kuy na fii gisoo table marché day doon ñaata place te ku nekkay wàcc job hmm. liggéey li ngay liggéey am na am yóbbul sa njaboot ah. waaw dëgg xam nga ñun kese nekkuñu fi mbër ñun ñoo fi mujjee ñëw hmm. tey ñun ñoo war a ñun ñun ñoo war a xeex loolu waaw parce que baabooy jaar na fi hmm. Eumeu Sène jaar na fi. Mhm. Pape Cissé jaar na fi. Jules mhm. Baldé jaar na fi. Mhm. Balla Gaye 1 jaar na fi. Pape Père suñu Pape Pape Diop jaar na fi suñu Père Fallaye jaar na fi. ah ñoom Matou Diop. ñoom Père euh, Mbacke Ba. kon ñun bu ñu ñëw ba fii ñun ñu koy ñaawal. ñëpp jaar nañ wax dëgg yàlla dara musul kon man ak Boy ak kenn ak soq ak war a defar parce que yéen bi su la mais mais tey Boy bu la joxoon nga takk di nga takk waaw man yàlla moom dafa ma dimbal damaa gëm suñu borom man hmm. yàlla suñu borom laa gëm hmm. moom wax yàlla yàlla suñu borom laa gëm hmm. waaw parce que tamit dama lay wax rek lu waaye def sa bopp tey boo nit bu ma ñëwee jox bu safaan bi tey mun na mars na kontaan waaye ëllëg yàlla suñu borom mun na feeñalaat lépp mais mais moom est-ce la wóolu si combat ba moom ak Balla Gaye 2 ah en tout cas combat moom ak Garga Mbossé man moom ñoo ko doxandoo lépp ba mu jeex. Mhm. façon galaaj bu nekk jox naa ko moom tamit sama combat noonu mhm. mun na si mal placé tuuti xam nga tamit nit ku nekk xel. waaw loo xam ne xel a koy nangu. Mhm. mun na si mal placé waaye dañ siy dox wax si. jàppale ko si lépp ba keroog yàlla di ko si defal jàmm. Boy Niang wala Balla Gaye koy jàppale. ñoom ñëpp ba ñoom ñëpp parce que ñun ñëpp benn lañ. Ah. waaw dañuy ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm. Ah, xam ne xam nga doo su mën a sori lépp lépp lépp. lépp lépp waaw d'accord yow yow Eumeu Sène nag neex na. Eumeu Sène neex la woon nag. xëy na ñuy gën a gisee ñun ñëpp nag. Ah. waaw ñun ñëpp dañuy gën a gisee. wax ah. dëgg yàlla comprendre. wax ah. dëgg yàlla Eumeu Sène maa ngi fàtte combat moom ba ak Bombardier. waaw Falaye Balde ak Malo def nañ si lu nekk. Mm-hmm. këram lañu añee di fa reer ak yooyu comprendre. combat bi paase. non non moom ak Bombardier. moo ko nag ba ba mu jëlee Modou Lo xam na. Mm-hmm. waaw après nag comprendre ñu dara moo tax xam na. waaw. Mm. mais mais yéen a ngi déggante wala déggante. waaw non franchement nag déggante jamono yooyu nag ñu ngi doon déggante. bu baax a baax nag. kan moo war a def le premier pas yaa war a woo grand bi wala grand bi la war a woo. non grand bi ñooy raxam. Hmm. moo war a mobiliser ñëw tette ñu. Hmm. ay raxam lañ xale hmm. mooy juum. xale mooy juum. xale la ñuy jégal waaye mag kenn du ko jégal. moom mooy suñu mag mooy suñu lépp. ba mu ci tollee. sama papa da ko tette sama mag Zilba la tette ko ñëpp tette ko. kon ñun bu ñu ci tollee moom mooy suñu mag mooy suñu lépp. moom moo ñu war a ñëw encadré ñun ñëpp. waaw kon yow loolu ngay xaar si Eumeu Sène. non xaar xaaruma sax si loolu hmm. xam nga biir Pikine dafa nekk guddi yoo xam ni waaw jamono yi dafa méttee métti métti li lay bëgg a def dara hmm. na hmm. si dégg ak yooyu moo xol ak suñu xalaat yëpp moo ngi si ëmb seen parce que mënuñoo tëb fenn di ko jéggaani parce que loolu naa fekk la sax boo demee ñaanante ne mu am jàmm mhm. na bàyyi sa gox mu ñàkk am jàmm loolu naa fekk si naa fekk la bokk naa fekk la bokk mhm. ah. waaye doo xam foo jëm après doo mhm. dem doo xam doo xam da ngay bëgg waaye doo xam d'accord eh, yow yow sox moom comme mbur ak soola de waaw sook sama waay la sook la moom ah, wax dëgg kooku moom sama waay la ah. def lu ma yëgul dañuy déggante dañuy defante lépp dañuy solante yére dañuy defante lépp wax dëgg yàlla moom d'accord mu jëm si combat bu doy waar de waaw mu dugg si combat ñoo ngi siy communiqué ñoo ngi siy waxtaan moom xam na waaw moom lu mu waroon yëpp wax dëgg yàlla ba mu ñëwee suñu xel dal na bu baax baax mm. Mm. leneen lu si des moo tali rek moo des lu mm-hmm. woo yëpp nañ ko jàppale xam ni mm-hmm. combat Sokh moo gën a doon ñun ñëpp suñu combat capital parce que ñun rëcc nañ mm-hmm. xam moo nekk buntu xam na da warul essai si combat bi doon nit koo xam ne man dama toog a waajuram gis ni muy def si bu baax a baax yàlla na ko suñu eh, da ngaa tooñ wali wala si naka quatre ans mënoo am combat waaw quatre ans ko waaye jël naa avance. waaw mais avance xam ne gars yi tàng na say loxo de. non tàng na jël sama loxo waaye xam na tey gars yi. mooy hmm, loolu. yàlla suñu borom nu may jëglee ko neexee. Hmm. nu defee nu ko neexee. Hmm. ñun tam dañ ko koy nangul nu mu neexee. xam ne yàlla suñu borom moom am boo xam ne tegle naa fi ay combat yu combat. xam ne tegle fi trois combats. jël tournoi TNT xam na. musuma année balaa xëy na tamit yàlla suñu borom bu ko demee dañuy sant yàlla bu baax a baax xam ne ay jaam lañ. est-ce du delloo avance Tapha bi moo la jàpp. non ànd daal Taphatine jàpp ma. Ah. parce que ku nekk sa gëm ni na bëgg. mënu mhm. ma daan Taphatine yaa un an deux mhm. ans dina maa ngi jëli mhm. xam nga loolu la donc. loolu la donc am fu ma woon visé woon sama bët muy Modou Lo. yàlla suñu borom nekkul dama ko visé ba pare di su topp di su topp jotuma ko dama ko visé. yàlla suñu borom may ma ma jël avance yàlla suñu borom dem mel ni dañoo war a toog quatre ans wala trois ans duñu bëri. comprendre dañuy sant yàlla bu baax a baax. xam ne am na yàlla de am na beneen yàpp bu jën. foo dugal Modou Lo ba mu blessé. noonu moom moo sa boppam de. Hmm. moom xam naa ba mu. du blessure xam naa ba ma ko tàllal xam nga signature ba ma tàllal sama ñaar loxo signature bi. Hmm. ëmb xam naa looloo tax mu dem force ji boppam ba gaañ. Hmm. mais combat boobu léegi moom yaa ngi koy wa yaa ngi préparé ba léegi wala combat wala ne pa nekkatul sa xel. non man làmb laa fi nekkal. làmb nga fi nekkal saa laay entraîné. Mm-hmm. waaye sa franchement mu loo bëggoon naa bëri moom koo na bu mm-hmm. bu doonoon bu doonoon suba suba suba suba waaw léegi mooy su sa def suuf. mooy suuf de wala ngi waxtaan waaw. Mm-hmm. bu nekkoon suba suba nga bëri ko. waaw. Ah. mais combat bu nga gën nga a bëgg bëre avant ngay bëre waat keneen wala. non nii nii xam nga ku feebar nag wala ku gaañu doo toog ko xaar. Mm. Mm. xam nga ay mbër lañ. Mm-hmm. mais ba ñu dugg si làmb dëgg la visé wu nañ bëre Modou Lo. Mm-hmm. visé nañ doon doole seen visé bëre mbër yëpp. waaw mm-hmm. ñooñu doo xaar lu ñu yàlla jagleel rek ñu xam ne mooy loolu. Ah, d'accord promoteur bi déggante ngeen si. non non franchement promoteur bi déggante ba mm. combat bi yàqu. ak ba mu amee yooyu yëpp dégg loolu lan nga ko jàngatee non du dara xam nga hmm. man mbër laa am naa staff hmm. moo ñu waxtaanal si Baldé di waxtaan ñu war a waxtaanal hmm. mbër laa dama war a nekk si entraînement yi rek mooy loolu mais kër Gaston de pour utal la combat yog Tapha Tine loolu lan nga ko jàngatee dama kër Gaston Gaston woo ko woo ah. Gaston moo woo Jules na ko dama soxla sa combat moom ñun yelwaanuñu Gaston Gaston bu yelwaan am ñun ñoo war a moo ñu kii parce que ñun ñoo ñu deseel xaalis sama combat maa min o gaston kon min ngelwa num ko de moo woo Jules Baldé na ko carrément kar dama soxla combat Ama Baldé Jules Baldé ba dem dépend dep kii déplacé wu dem bu woo ko ay prix ñàkk fay la Jules Baldé ñoo toogal ñoo toogal mhm. mhm, d'accord mais yow yéen ak yow la sa xel a gis moom bu baax kay am na am na promoteur yi koy dox waaw am na promoteur wax dëgg yàlla moom mhm. du yàgg dara du yàgg dara dara dara moom ma jël avance ngeen dégg ni ah moom am na avance. contre Tapha Tine waaw waaye tamit dama ñu si benn promoteur di ko. Mhm. tëggal ñu. Ah. ñu nekk ñu produit boo xam ne dañoo war a dem si kenn di tëggal. kon la tawoo daal. non non. Ah. moom moom yàlla suñu borom dimbali nañu. Mhm. leen lañ leen lañ leen suñu papa njëkk a jàngal àdduna. Mhm. muy ñànki. ak jàmbat. jàmbat sama papa jàmbat dañ njëkk a ne góor yàlla du jàmbat. góor yàlla du découragé. ñett yooyu ñaar yooyu lañ suñu papa jàngal. ak doylu waaw ak doylu lu mu métti métti métti métti mm-hmm. dañuy xam ne tay tay la mm-hmm. suba day am mm-hmm. kon sa diggante ak Lac de Guiers ñu koy xaar de non dañuy bëri maa ngi la Lac boo waxee ne sa combat ak Tapha Tine la si des bëreetul waaw non dama la yàggatul dara dina dégg am naa combat waxuma la sise wu ma la yéen bër ah. yàggul dara comme mun na nekk Lac 2 waaw ma ne doon Lac Lac Lac de lu tax nga visé ko nii rek depuis yàgg na de bi nga yàgg ko topp Lac la moo war a lool. depuis 2012 yaa ngi koy topp. mais Lac de xam nga ne du mbër du du mbërum ñeexum ñebe de est ce que xam nga loolu. waaw champion la moo vrai xam nga ne vrai champion la. bu naqaree bëreel bu naqaree bu naqaree daan. est ce que gis nga mbër est ce que mbër mus na mus na ko daan ba toog ci kaw non musul am. est-ce que mun nga ko daal ma toog ci kaw. ah luy loolu. ah damaa laaj rek man ne tën na ji laa fi nekkal la nekkul ah dëgg la lag de du jeexee ay ay décision médicale ak avertissement. ba may am 18 ans laa laa laa laa laa laa tëb bépp mbër ba may am 18 ans. boobu duggaguma sax si làmb nekkuma mbër boo xam ne dañ ne toujours daal te naa ponkol yëpp ponkol yi fi nekk yëpp ku ma si daan ma daan la mm-hmm. muy ponkol yi nekk Pikine yooyu ñëpp ku fi nekk ku ma si daan ma daan mm-hmm. ma ko làmbaatu nii rek làmbaatu mm-hmm. nii nii wax dëgg yàlla lu si war yëpp def na maa ko si xam na moo tax nga teg soog daal grand bi nii quoi non teguma soog grand bi mbëri yëpp ne fi waaye laa suñu combat day neex xam nga ah. tamit lu musul am bu amee day neex bu musul toog si dëndam te man rafet naa njot suñu entraîneur Jean daf ñoo jàngal lu nekk. Hmm. ñun dañ fi amoon booy Guinné. waaw ah. am fi Zeyaan. Hmm. am fi Laay Bay. Hmm. am fi Xaadim Sarr. am fi Siré Seras. am fi Sil Balde am fi Maalo Seras. am fi Fallaye Deux. ku si nekk ak nooy bëri. ku nekk ak nooy bëri te mais ñooñu du ñu Lac de Guiers 2 de. ñooñu du ñu Lac de Guiers 2. ma yàlla sax ñooñu doon Lac de Guiers parce que ñooñu mën nañ dara. mën nañ défendre mën nañ assurer. mais Lac mën na loo xam ne lu benn mbër mënul mooy rasu. te resu arme la. waaw tam yàlla def hmm. mais du ñëw du ñëw sa kaw de est-ce xam nga loolu te moom boo ñëwul du ñëw sa kaw. du moom du la attaqué mukk te boo attaqué moom te à force da lay jumloo. waaw man attaqué ah da ngay jëli la. waaw hmm. moo dàq bëri pikin. waaw Eumeu Sène. Hmm. àdduna am na loo xam ne mënu ko muy song. te Eumeu Sène mu ko songee da ko daan. yow daal sa yaram mooy laaj la. te yow xam na yow làmb làmb la kenn gëru laa xam làmb xam nga Eumeu Sène ndax mun na song wala munul song. dëgg la songee laa da hmm. Hmm. mais xa euh, sa daal mooy laaj la dëgg moom sa yaram. non lat keneen lat dañoo benn pënd bu jàlloon la rek ma tudd ko. xam nga hmm. après bu jeex na maa ngi si xam na waaye moom wax dëgg yàlla. nga ni ngay toppee sa grand yi nii am na ay boy yu nekk si ginnaaw yow loolu loolu la ñuy rêvé bëre yow waaw maa ngi koy waajal. est-ce que xam nga loolu. maa ngi koy waajal gëm naa nag booy. Hmm. man boo xam ne bu leen booyee mën na la mënal dara. waaw ah. booy yu judd ay kii booy yu judd ay lan deux mille. Hmm. ñoo muy mënal dara de. Hmm. booy yooyu parce que booy yooyu laa mag waaye booy yi nga gis ak ginnaaw yëpp ñoom mag. mais ñaar am na ñaar yi bu l'an avant l'an deux kenn si moo ngi ni taxaw muy rëg-rëg. waaw rëg-rëg sax sax sa kaw la jëm de est-ce que xam nga loolu. pare naa pour ñëpp maa ngi fi pour amala xale laa su ma rajaxee sama mag yi ba pare. Ah. damay dellu ñëwaat sama morom ëpp ñu ma dool daa ko ñu bëri. mais Reug Reug ndaanaan la dëgg la. waaw mag moom champion la dañ doon daje diinu Tiwaan pël yi. waaw wax dëgg yàlla. Mm. boobu laa mos a nangu ah, ndaanaanam. Mm. franchement. Mm. parce que nañ fa six waaw. trois mois lañ ko jiitoo mu ñëw yeneen trois mois te mbër bu fa nekk hmm. benn semaine daw hmm. moom laa gis mu toog fa trois mois yi laajte loolu am solo kii bu hmm. lay doon champion kon champion moom xam naa ko di ko ñaanal carrière am ko doon ñaanal yàlla na moo xam nga ne bu wëlbatee Sa Thiès yow la si yow la man maa ngi fi maa ngi fi man maa ngi fi maa ngi fi bu baax a baax di xaar la njaago bi tam moo ngi sa xel de est xam nga loolu ku njaago franc kan la franc franc dañ koy daan a jël suñu. ah franc mooy. franc bu saf saf la de. day naan sëng di naan bière. <laughs> Ah. ah. waa Guinée lañ yow. ah waa Guinée lañ. ñu ñooy borom kat yi. ah en tout cas waxal mu def lu mu mën de. non day daan bu neexee yàlla. ah xam boo jëlee combat ba pare. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man bu keroog ma ñu waxee téléphone dama xam na man du mm-hmm. soo musul ànd damay taxaw xas la waaye tey boo gisee ma lay takk kon mm-hmm. dal dal na sama xel xam na mm-hmm. kon lu si dese ñun ñoo koy mottali ñun lay kontaagal dal suñu kaw mm-hmm. xam na am na yoo xam buy tey soo ko buy dalante suñu kaw dem ba mu mënee daan mm-hmm. kon bu taxawee bu taxawee franc fu day xeeb franc ñun tey ñun la ñun loolu lañ ba mun ñoo jàpp ñu yëkkati ba si kaw du dóor suuf avant combat bu ko defee rek bu ñëwee dara du ko yéen borom plastique yi tamit moo ngi sax moo ngi si yow la bëgg ñëw de borom plastique yi eh, ki tey jàmm gën ki tey jàmm gën ak loxoom su ma jëloon tournoi bi day xam lan laa ndar man mm. maa waroon jël roi des arènes. mais ba ki tey jàmm ki moom moom may pare nga ko pour may chance muy Siteu. déggoo ma su ma ah. jëloon roi des arènes. Ah. na xam ndax man. Mm-hmm. kon lu gars yi di wax ndax ma kon lu sama gars di wax. ñu leen gën a dof foofu. mënoon mm. laa jël roi des arènes boo ñëwoon toog dina xam ne gars yi ñu ngi xalaat sa xalaatu ma. kon yow boo ko gars yi di écarté ak ay parents. non boo déggee Siteu boobu léegi ma naan la. Mm-hmm. kuñ maa ñëw dama nekkoon si benn yoon. waaw muy roi dama nekkoon si yoon mi roi des arènes. kon tey doo jël yoon ba pare di xaar leneen. Mm-hmm. ma nekk mu mbër boo xam ne dama war a mën a maye sens. comprendre mm-hmm. nekk boo xam ne war a mën a maye sens. Mm-hmm. sens nag du ñàkk. waaye tamit dangay am ba pare. ku amul nan lay maye sens. yow daal ba su ma téye roi des arènes bi sa porte moom mbër yëpp nga ko ubbi. yëpp laa ko ubbi. dëgg yàlla moom su ma nekk ba téye roi des arènes. le treize mars su ma bëri woon. bala quatorze mars boo ñëwee interview ma. boo waa ne xam. est-ce xam nga ne janvier di nga bëri ak Modou incha allah man maa fi ba suba maa ngi fi muulu. loolu hmm. denc bu kii la kon lu ma la waxoon rek. béykat hmm. bàyyiwuma ko ba léegi. Hmm. waaw bu ñu demee mais combat boobu yëpp di xaar. bu ñu demoon ba bu ñu demoon ba jàkka sax. bu ñu bokkee sàppi naa ko dóor épaule mais est-ce nekkoo si forme. waaw man maa ngi fi fi. <laughs> mais physiquement temps yi taxawoo de. dëgg yàlla du ma ndax sama bopp. man lu war yëpp maa ko def quatre ans ngi may entraîné. <laughs> état mënu jékki-jékki dem si benn fan si ñaari fan mënul nekk non dama laa jàng. Mhm. damaa gis ne daa temps yi dara newu fi de. loolu loolu loolu xalaatu man su ma amul làmb sax dama si nekk. ah dama siy nekk parce que tamit damaa xam nga ni ku dul ñaan. Mhm. ni ku dul daw peloton chaque jour boo si nekkee da war a def loo xam ne sa moroom góor du la duma. Mhm. am na boobu nekkul sëriñ. nekkul ñaan waajur nekkul dara. loolu na dem reyante sa bopp si géej bi. dëgg mooy waral ne sa góor du la mënal dara. loo am am ñaan ñaan ñaan sa moroomu góor am na ñaan. loo am am ñaanu waajur sa moromu góor am na waajur waaye lu si des yaa koy liggéey sa bopp boo toog sa moromu góor du la yëpp mm-hmm. te xam naa ne maa ngi si géej maa si mm-hmm. Mm-hmm. xam nga ne yow yow sa examen bi waroo échec walla si yow Modou Lo yow Modou Lo est xam nga ne examen la boo xam ne sa bac boo xam ne la waroo échec ah yàlla baax na mm. la en tout cas xam naa ko bu baax a baax Modou mm. dëgg yàlla xam nga bu baax ap ko ci biir combat bi yéen gisante ngeen mos ma leen dem bëri bëri waaw franchement moom ndax moom mm-hmm. bu ma yow maa ngi dem si maalaw mm-hmm. wala ma dem xoole sama gars yi mm-hmm. wala ma nekk si entraînement yi bëriwuma lu may fréquente nag bëri wax dëgg yàlla bi ne gis nii sama mbokk dañuy toog ay ati at duñu gisante duñu déggante mais ni ngeen doon ànd ak Balla Gaye de wàññeeku na nu mu demee noonu non lamb rek lañ doon ànd ah lamb rek bu lamb jotee dinaa dem toppatoo ko xam na xam na ñu ànd entraînement après bu jeexee nekk sama xarit sama kon Gris Bordeaux bi di nga ko si jàppale Gris Bordeaux. Hmm, Balla Gris Bordeaux. Balla Gris Bordeaux Balla hmm. da nga siy jàpp da nga siy jàpp bu baax. bu baax bii dafa fekkoon na ma nekk France. Hmm. yow gars yi lan la lu tax gars di ànd ak yow pour jàppale jàppale doole la wala jàppale mystique Balla lan la lan lay wut si yow. ah Balla la may yow mystique lay si yow wala wala doole. non du mystique du moo la ëpp mystique. waaw moom misi man man man mooy loolu man làmb misi misi ñu koy def mais mais mais Balla jaralu ko bu amee combat nga jël ay ay ay ay dugal ko si koñ wala ay ay taalibe. ah daa am mbër yu koy def. waaw ah, mbër yu koy def yow ko def. kon daf fi càkkaaba du fa duggateel kii. Hmm. Hmm, xaw ma ko woon. ay càkkaaba. kon làmb am toll na foofu léegi. non dama lay laaj ba nga koy may laaj. yow mosoo jël caakaaba. Ah, kon la làmb métti na temps yi. ah caakaaba ak taalibe yëpp da si am. Ah. ay dugg si kër yi. Ah. taalibe mosul dugg sa kër. non xaw ma loolu de man. xam nga loolu. Hmm. gis femme mooy ut mbindaan dugg sa kër. fii de kër kër taalibe la fii de ku nekk fii dugg. Hmm. kër gi amul porte man de boobu. ba ma gisee sax ñu tabax ko def si porte damaa yéem. Hmm. kër gi moom kër gi ku mu neex dugg. Hmm. kër gi bu defee semaine daal wala benn fan. Hmm. la gars yi nekk di xool nekk ñu war nekk nag ñu nekk si gars yi may akaar. waaw lu tax Alaaji Mbaye victoire daanu ba pare xam nga entraîné woo daanu am blessure ci blessure lu tax muy saltel victoire wala. blessure xam nga blessure xam nga ban mooy blessure. blessure boo xam doo gis. walaay mbéykat ba mu la wane tànkam na xool xam na ne kii daa blessé ah, salte loolu daal non tànk gisoo tànkalaay bi hmm. neewi neewi kat fu mu am hmm. xamal ne jàmm amu fa mais lu tax warul leen ko avant combat bi nañ ko affaire ko avant combat bi waaye tey hmm. Lac Rose mënul yàqu euh, combat mënul yàqu xam na te booy xool buuse kii léegi moo tax amateur yëpp ñëw comprendre mhm. kon dafa doon def CV bi ak xel bu dal mhm. xam na yaakaar mhm. ne mun na see am ndam lool la donc ñun tam ñun ñëpp ëmboon victoire lañu yóbbu parce que tamit ñu alaañ bay mu nekk suñu koñ nekk si salle ba pare dem entraînement indiwul forme indiwul dara loolu munul nekk munul nekk alaañ mbay même budul dara dara dara dara bu amul combat amul dara munul toog semaine munul toog du entraînement deux fois wala trois fois loolu mu entraînement man mii sax moom moom lu muy digi man mii di bi sax moom gërëm moom loolu da ko tàmm moom mm-hmm. fajar moom moo ko def mu yëg dem diin entraînement ñëw toogaat franchement mm-hmm. yàlla nag moo ñëwee nu ko neexee xam mm-hmm. xam nag gàllaaj sax mun na la jàpp ba dañ lay vidéo wala ñu kiir ak yooyu mooy loolu xam loolu dong la laaj mbay lan ngay wax si Jaguar bi ñu jàpp États-Unis suñu booy xam nga loolu la nga siy sànni affaire ba mu nekkee France déggante naa avocat am di def naa lépp def nañ si lu ñu a def yëpp xam dox nañ si wax nañ si xam def nañ vidéo def nañ lépp dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm parce que Jaguar moom a seedeel parce que ba ma nekkee xale moo ma jàngal moo ma jàngal tàpp jàngal ma lépp ma nekk këram xam na ay julleeg yooyu yëpp moo ko jàngal yooyu yëpp xam na mu nekk ku baax xam na dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm suñu borom boobu mu doylu mm-hmm. ba wax du ko raw da du ko yàlla na ko suñu borom dimbali xam na jàmm nag munul ñàkk ndogal mm-hmm. munul nekk xam na mm-hmm. laay fi moom ah, boo jënee sa kër dañuy day xalaat xalaat safaan li lay ñëw dana mhm. mhm, ko ne mhm. waaye kooku du Jaguar Jaguar mel noonu xam na nit moom sañoo di seedeel nit sax dara waaye donc dégg ngeen appelu Ama boobu si Jaguar ñu téye ko États-Unis pour viol mu nekk cas bu parce que mun na fa tëdd à vie donc euh, yaakaar naa lii dafa am solo pour ñëpp ku si mën a jàpp rek jàpp ko parce que Jaguar man mii xam naa ko quatre fois mu koy def. Mhm. néegu Zakaaba mooy c'est la première fois. Mhm. mu koy def comprendre. Mhm. waaw parce que man ba ma koy avocat bi. ba ñu woowee Jaguar. Jaguar jabat yee ko woon ko police ñu woo ñu si kër gi. après Jaguar war a ñëw si kër gi mu ne ah, mu ne Jaguar dawal na dem New York. Jaguar ba muy daw di dem New York la woo police yi ne leen moo ñu daw. pour dem New York. dem leen jàppi ko. léegi nag sa waar sa yooyu rek. ku monté la daal ku monté waaw man avocat sa waar bi mm, yàlla na ko yàlla defal jàmm. ah donc looy tàggatoo waxtaan bi neex na de. waaw lu may tàggatoo ak say la nga leen di wax pour dernier loo xam ne lu leer la daal. lu may daal maa ngi ah. bu baax a ah. ah, mhm. bi nga siy dégg. Mm. Eh, internet bi da siy dégg lu nekk. Mhm, xam nga mhm. da siy dégg lu nekk. Mhm. ama waru ama ah, waru bëre kii ama waru bëre kii. ama waru bëre dama naan leen. lépp rek yàlla suñu borom la ama benn jàmm bu toog la. dëgg la benn julli bu toog la benn jàmm bu toog la boo xam ne yorul yorul programme yàlla suñu borom moo yor programme. sañ nañ yeew entraîner sañ nañ yeew dem liggéey sañ nañ yeew am yàqin ne mbër bi ñoo ko mën. waaye yàlla moo yor dañuy décision comprendre. di sant yàlla bu baax a baax di naan njabootu làmb. maa leen sant bu baax a baax ne làmb nañ ko gën a am na nañ gën a kiiwaat booy xool suñu làmb bi muy suuxat bu baax a baax làmb bi mhm. xam na lu mu waroon neexee neexeetu ko mhm. lu ko gars yi di bàyyee xel bàyyeetuñ ko xel xam mhm. kon nañu ñaan yàlla rek ñu gànk làmb bi téye làmb bi nañu dimbali gën a doxal suñu làmb bi parce que moom la ñu am amuñu leneen lu mu say fans ñu xaar combat waaw sama fan nañ ma xaar rek yàggatul dara dinaa am komba bu neexee yàlla incha allah. mois de janvier. incha allah naa jël avance daal xaw ma nag ban date laa koy bëri. Hmm. waaye du yàgg dara dinaa jël avance soo donc ngi woon nag euh, Ama fekk ko fii muy ngénd ngénd bu rëy de. ngénd la sama kàl ah, lañ. Ah, ah, d' accord waaw booy xool su ma amee combat. Hmm. bu ñu nee suba la combat. Hmm. kër gi laay fanaan bu ma fanaan suñu kër. comprendre fii laay fanaan. fii laay defee sama sarax yi yooyu yëpp. lu tax càkkaaba yi ñëw fi. non fii xam nga famille lañ ñuy famille lañ tey man sama combat mun naa hmm. dem fanaan kër gii mun naa dem fanaan yi ko ñoom àllaa ñi problème yooyu amuñu ko hmm. parce que ñun ñëpp ñoo juddandoo si koñ bi yorandoo si koñ bi comprendre hmm. ñu doon waa koñ boo xam ni amuñu si man amuñu si man amuñu si man kii euh, sago lu ma neex neex na ma boo balaa lay xam ne waa koñ bi kii na gis bu ma yeewoo sept heures matin fii su ma fi nekkee ñëpp ko nañ xam ne Ama Baldé nekk na fi parce hmm. que sept hmm. dugg si koñ bi mbalak maire yi mbalak xale yi mbalak ñëpp comprendre hmm. kon ñoom dama leen di bi yàlla na suñu borom defal jàmm dëgg yàlla koñ bu neex la dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo far kon lu la amul siisumaan boobu amul siisumaan <laughs> donc yaa ngi jox rendez bu gars yi maa ngi ñëw léegi léegi incha allah dal seen kaw waaw waaw waaw yow yaa ma gën a xam d'accord dama sa benn interview moo tax ma gën laa foog ma xam ne xam na ban interview la woon mooy bala naan Ama Baldé gars yi dañ doon lalal gars yi siyaada der siyaada kii interview bi xam ma mm-hmm. gis noo ko waxee xam na ni moom boo xoolee kanam ni nga xam ne kii ndax xol lay waxee wala day wax nii nii xam naa mm-hmm. may wax sa xol na ko jëndi comprendre ah. mm-hmm. yow yaa a xam ah dafa baax rek di ma laajte <laughs> ñu ngi woon ak Ama di ko jaajëfal di ñaan yàlla nag combat bi nga xam ne ñu ngi koy séntu mois de janvier Euh, yàlla def si ndox mu sedd mu bëre ko parce que ama mooy làmb dañ doon wax ne Modou Lo ama moo war a dekkal làmb te loolu dëgg la Modou Lo ama moo war a dekkal làmb te ngi ñaan yàlla Modou Lo wër ama wër ñu jëflante arène nationale ñuy ñaan fan si nañu ñëw ànd ak jàmm affaire bi entre ama la ak Modou Lo ah, parce que bu ñu yàqee combat bi ama bëriwul ak Modou Lo roi bi du dugg Pikine mukk combat boobu gis nga moo ngi ni taxaw ba léegi donc na ah, fan si ànd ak jàmm ànd dal kaw yëngal ci suuf non lañ koy waxee wa wolu leen ma rek xam nga bo amé sa mbeur wolu ko jaru sa ah, ngay sanni xéer deug la surtout na mbeur bu mu digg géew ah, wóolu ah. leen sànni xeer yéen tok leen rek sañse leen nos leen def leen dara lu si ñu ñokoy motali donc donc jëf Ama ñu jox la rendez-vous prochainement ci ibakan TV donc Ama ngi nii euh, troisième partie interview bi dañuy dugg nak ci digënté mak modlo Ama Baldé yoog modlo xaar bi yag na trop Ama ñu dañu bëgg xam ndax combat boobu dina am wala du am yow lan nga ñu si mun a wax ak lan nga mën a wax Sénégal ak amateurs yi ak say fan. non franchement dañuy dem maa si mu war a nekk ñoom. waaw maa mhm. tamit nekkul Modou Lo kese moo fi mbër moo fi sant mhm. mhm. sama entraînement nii. maa ngi si yeneen. waaw bu fekkee làmb Modou Lo. dañoo war a bëriwaat. dañ bëri laa war a bëriwaat nañ mais Sénégal Ama Modou Lo lañ bëgg. waaw mais Sénégal Ama Modou Lo lañ bëgg. Mhm. Ama tamit Ama Modou Ama Baldé mi toog. waaw Ama Modou la bëgg. yow sa yaram Modou Lo lay laaj. waaw dëgg yàlla waaye tamit ah. xam nga tamit doo nekk topp si benn affaire rek. tout le temps ah. tout le temps tout le ah. munoo comprendre lan la. accusé wuñ kenn. waaw waxuñu Modou Lo moo ko tay wala waxuñu moo ko def dara. comprendre. waaye toog si benn affaire tout le temps quatre ans ñu toog si benn affaire. di si def sa mm-hmm. xaalis di si def sa xaalis. Mm-hmm. comprendre. mënul mm-hmm. sotti mënul def dara. day toog xam ne yàlla suñu borom moo moo ko lëmmagul. comprendre waaye Modou Lo. bëgg na bëri man man tam bëgg naa bëri Modou Lo. te daa sotteegul rek. yow combat bi ñaata nga si dépensé ko tey boo ko doon xayma. non dépensé naa si quatre ans boo toog benn micro rek dépensé naa. xam uh-huh. fu nekk da lay woo da la sarax bi Mm-hmm. waa entraîneur yooyu ah doo dem doo leen fay sax léegi. xam nga mm-hmm. combat bi dana leen di fay. waaw xam na. Mm-hmm. boo ko doon xayma ay million ñaata la tey bëri na bëri cent millions. lu ma fay ak yooyu yëpp ak man lu ma si def yëpp sama liggéey li si def yëpp. ëpp na ko. Ah, ëpp na ko franchement. nga si lépp cent millions. si ah. boo sama avance. waaw cinquante la. 50 million lañu avance waaw. kon na mhm. mhm. demoon nga Europe tamit. dem naa Europe. waaw dem naa Europe dem naa du combat nga dem naa fu ne. Mhm. yow tukki yoo xam ni waaye sant yàlla bu baax a baax. combat bi ñaata sëriñ nga si mobilisé woon. bu ñu jàppee le 13 mars. Casamance rek nga yem. Casamance Gambie. xam mm. nga ak fii Ndakaaru. pour mm. yàlla ñu may ñaanal rek soolaa yem soolaa yem. du du ma wàññiwuma. Mm, duggoo Mali sa sa zone boobu. Mali mosuma ko dugg. ah mosoo dugg Mali dëkk Afrique Gambie rek laa mos dem. Gambie rek nga mos dem. yow yow sa sëriñ yi dañ lay leeralal avant combat da ngay daan da am nga sëriñ bu la ko mos a leeral. fii moom sëriñ yëppay wax. waaw sëriñ yëpp ay layee mbër buy bu dem stade tous mm. bëgg sëriñ wax waaye man après lu si des moom yow yaa koy mootal yow si combat Modou Lo am la wax lu leer non sama combat Modou Lo moom dinañ may naan entraîneur rek dama entraîné yi ma dem entraîné yi na yàlla xam ne mu mm. taxaw di la wax yaay taa waaye naa la yàlla baax na rek mm. ak tettal li lay jox nga xam ne kii waa ji la wala nekkul waa ji yow yow yow mais si say combat am na koo xam ne mës na la wax ne demal dangay ngay daan mbër mi wan wan wan la ko ko quoi. non amul sama ñaari combat yi ma daanu nag lañ ne ma da ngay daanu. waaw ah, compte guy ak kii hmm. mais compte mu Lo am na si ku la jox preuve lu leer ne da ngay daan Modou Lo. ba Modou Lo nekkul sëriñ man la lu sëriñ teg la fee man la man Ama Baldé. yow Ama Baldé yow la nekkul sëriñ laay vocal yow su Modou Lo. war na maa man personnel. Hmm. loolu sa diggante la ak Modou Lo. waaw nekkul sama diggante man personnel lu nekk si man la. Hmm. nekkul sëriñ nekkul dara. Hmm. man personnel rek gëm naa ne Modou Lo gëm gëm waxuma la gëm naa ko. maamu hmm. Modou Lo. man personnel rek. yow yow personnellement. après sëriñ bi ñëwee dégg dé delleeku daa delleeku rek. waaw waaw man xam naa ne su ma indi woon ndoxu géej mooy loolu mënul a dara. loolu la bu ma dara. nekkul ay sëriñ nekkul ay. mais ama loolu foo ko teg. non tegu ma ko fenn tegu ma ko fenn dama teg ni aar bi xam naa ne wax dëgg yàlla catu ma sama bopp. franchement xam naa lu si nit def def naa ko si. Hmm. lu si nit am yaakaar def naa ko si. Hmm. mais Ama yaa ngi bëri mbër boo xam ne daanaan daanaanu làmb la. champion la. waaw man moo xoolal loolu yàgg naa ko wax waxati ko waxati ko. waaw la man lu nekk si man. lu hmm. nekk si dama koy wax. waaw man bokkul kon bokkuma la moom. waaw. na nekk si nit ki bu la tuddee si nit ki bu la tuddee nit ki sax na bëgg a wax bu coow foofu dafa sew. Mhm. wala dara non non man nekkuma noonu. waaw loo xam si nit ki laay wax. Mhm. moom xam si man ko bañ a wax. waaw moom loolu problème am la. Uh-huh. waaye man lu ma xam si moom dama koy xam naa ne champion la. champion la xam naa ne mbër kaamil la. waaw xam nga. Uh-huh. mais yow daal da am ngëm-ngëm ne boo leen jàkkaarloo. waaw même ak ndoxu géej da nga koy daal. maa ko mën moom. yaa ko mën mais mais tey boo leen bëriwul mu daan la mun na nekk. mun na nekk waaw yooyu da koy bëgg a tudd ci ah mais làmb la de ah, ah, mon frère. sama àdduna boo xoolee tigi na ñooyu yëpp. Ah. ku ma mus a ku ma mus a bëree mbabal ba ma daanee fay hmm. hmm. a bëree la la ak yebaate. Hmm. ak yebet mu mos a jël revanche daan naa mais mais est que tey bu arbitre sifflé kon du nekk pression si yow parce que yow da ne jàpp da nga yow yaa mën Modou Lo est loolu du nekk pression si yow. musuma dem final ñàkk musu demi hmm. hmm. su ma a bëree tournoi ba léegi dem final final gars hmm. mais mais est-ce que du nekk si bu combat bi arbitre sifflé. non amu pression. pression moom nekk si dëgg yàlla sama ànd nag lépp nag muy sama vie muy làmb bi muy sama ànd moom pression nekk si lu ñëw rek yàlla suñu borom la mais yaa ngi bëri mbëru tànk waaw li ma la boo wax champion la moom. yaa ngi bëri mbër moo xam ne euh, day dóor. day dóor di jàpp di bëre ku nekk si kaw Bombardier si kaw Balla Gaye si kaw lépp waaw. Hmm. kon champion la. Hmm. kon nañ close Modou Lo ñu dem seet ne waaye champion Modou Lo hmm. moom wax ko xaar. Modou Lo lu koy lu koy daan. lu koy daan ah mais yàlla xam ne moom moom xam naa yekk bu baax waa sama bopp. waaye yàlla suñu borom moo xam li daan moom la. Modou Lo dafa am ay point faible yow loo gis ci moom ay faiblesse. kii dañ dem seetlu leneen. dañ ah. <laughs> dem waxi feneen. mais si wax di si wax di si ah. <laughs> mais dafa amal solo public bi. Ah. plus amateur yi ñoo soxla sa combat boobu moo tax. seen jaxasoo arbitre bi sifflé seen jaxasoo. mais amateur yi xam nañ fu mu tàggee fu mu dëgëree. Hmm. xam nañ ko. Hmm. fu mu tàggee yow bu da nga koy gëdd. man daal damay ñaan yàlla yàlla suñu borom defal Bulan la gëddee nag moom bu la njëkkee gëdd nag yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ma jàmm ma ne bu la Modou Lo njëkkee gëdd doo nettali sa gént nañ bàyyi ba at bu fekkee dina taxaw nañ bàyyi ba yàlla boole si bis boobu rek doo hmm. nettali sa gént xam nga xam nga ne Lo moom du reculer benn pas ndax si forteera mi ah, waaw champion la champion xam nga am na hmm. champion la hmm. xam nga mu dugg euh, arène nationale yëngal ko yëpp nga du tax wàccoo. non suñu gan la. non ah. nekkul man maa war a wàcc di diirante moom mag. loolu su ma ko ma. dëgg la wax dëgg yàlla maa a dalal. Mhm. ambiance lamb bi dama ko lu mu moom. Mhm. ak lu mu am dama ko koy jox ba mat sëkk. Mhm. wax dëgg yàlla. tamit nit ki tamit na loo xam ne baatoon na sax. waaw. buñ dawul dugub wàcc naa tuus bi nga sama supporter moom la waru toppaat si ginnaaw mel dama koy topp si sama laaj. du ma ko topp. danañ ko topp dañoo war a xool li defar làmb ñu defar ko mm. suñu bopp mm-hmm. ñëw na si jàmm salaam ñibbi na si jàmm salaam fara ñi ñëw na si jàmm mm-hmm. salaam ñibbi na si jàmm salaam loolu dañ see kontaan suñu feet la dëgg la wax dëgg yàlla waaye tey bu ma ñëwoon mm-hmm. mu ñëw fii ma xiiru fii ma xiiru fee. dama may sonal sama bopp rek sonal ko. dëgg la comprendre. fee nag lu indi lu ko indi si làmb. waaw dama may bàyyi mu def ko parce que amateur dañ ko a gis nëmb ko. dama bàyyi mu saw. mu saw mais dina fa dugaat de. waaw bu dafa duggaat parce que hmm. champion la mbër la. dafa hmm. duggaat duggaat fa duggaat fa loolu la koy yàlla. Hmm, d'accord sa combat ak Modou Lo ngay wax euh, say fan pour parce que boobu tamit nit ñi dañu si ragal violence. non bugguma di focaliser wu si combat boobu. mun naa la wax saaga ndey rek laa ko def. waaw. te loolu mosul am benn mbër mosul taxaw ne Ama saagaram hmm. loolu rek laa ko def waaye lu ñu war a wax yëpp wax na hmm. comprendre lii nag dafa nekk si dañuy dem xool sama carrière hmm. la a def suñu bëri sama carrière pas Modou Lo pas keneen ak keneen waaye Modou Lo bu ñu waree jàkkaaroo war a bëri jour boobu amateur nañ xam ne lii lii lii war lii war nga ñëwoon tamit lu neex yow ànd sa copain Boy Niang ànd ak Eumeu Sène ànd ak yëpp stade bi fees dell jour boobu lu mu la def bi nga duggee stade bi fees dell dell dell wallaahi jour boobu dama tuur rangoon tout temps su ma la wax soofu di tuus ak ñoom xam nga. Mhm. parce que dama gis naa sam boobu bu baax a baax. Mhm. après nga am lu la naqari nag bi ngay ñibbi. waaw am naa lu am na lu naqari. parce que man lu ma la doon wax rek. Mhm. boo gisee sama interview yëpp dama naa ne Franc. ku ne soqamul Franc rek. dana faral soq. waaw waaye tey soq li ngeen dox yàlla may ko ndam. dëgg la comprendre. tamit booba ñu tamit suñu gëm waa suñu ñàkk yëpp ñu gëmoon nii hmm. sook day daan comprendre waaw yàlla suñu moo ko dëmmee noonu dogalee ko noonu hmm. dañ koy sant yàlla bu baax baax ne sook mu toog focalisewu si boppam bu baax hmm. bu baax xam nga nit moom boo nekkee doo ko jaay doo ko raay waaw noo xoolaat boppam bu baax a baax ne boo nekkee yaakaaru gox nekk yaakaaru àdduna heure bu ñu ñàkk si laay dama koy def keneen dama koy def. Hmm. parce que kenn parfait wu nit lañ. dëgg la waaye tamit dafa focaliser boppam bu baax a baax bu baax baax. xoolaat hmm. hmm. boo àndee ay nit ànd ay ponkal. waaw yoo xam ne boo daanoo ñu rey seen bopp. ah. am yu bëri yoo xam ne bu baax a baax. waaw. donc bu baax a baax. sa bopp xool sa entourage xool nooy doxee. parce que gàcce baax gàcce day rey. day rey ah. gàcce baaxul. parce que combat boobu yow dañ si investiroon bu baax dañ si dugal sa loxo ñëpp. ñoom muy Eumeu Sène mm. Boy Niang mm. man duñu ngaar mm. maire Pikine yeeg ñëpp ñëpp amul kenn koo xam ne jàppale woon jàppale lañ ko wax dëgg yàlla moom tamit joxoon nañu joxoon nañu confiance bu baax a baax baax a baax a baax comprendre yàlla suñu borom nag mooy décider du ko neex yow ban erreur nga gis ne soq la def si combat xam mbër moom boo deful erreur doo daanu. doo daanu mais am na erreur bu mu def. mbër boo deful erreur doo daanu. waaw comprendre hmm. na erreur bu mu doon def. waaw Franc ba mu ko eggee foofu dafa waroon jéem a rëcc. Hmm. wala mu fël boobu waaye dafa dafa hmm. dafa Franc ba mu pivoté wu rek am am na ñu ne dafa diisoon si combat bi. xam nga làmb moom tamit làmb bu làmb daal dafa métti làmb moom <laughs> kenn xamul lal lal làmb ah, ah. en tout cas xel bu baax a ah, baax xam ne moom champion dafa bokk si làmb hmm. am na defet yoo xam ne boo koy enregistré da ngay xool sa ginnaaw parce que dafa am champion yoo xam ne dañuy bi hmm. champion yoo xam ne dañuy toog si tribune bi hmm. champion yoo xam ne dañuy toog di xool mbër ban faay lay def ma dafa am ñaari mbër maa ñaar dafa bëri xaar Ndiaye numéro deux ma wax si yàlla du ma Tafatine El Hadj Diouf dafa bëri El Hadj ma mm. wax si yàlla kii mënumaa daal mm. day bàyyi xel am na mbër yoo xam ne dañuy toog di bàyyi seen xel mm. doon mbër di xam bu baax a baax booy bëri bul bëri sa adversaire da ngay xupa bëri sa forcer sa adversaire d'accord nga si bàyyi xel bu baax a baax après Franc daal ne dese na ko ñetti ponkal yi nekk ñetti bërigo yi te yow bërigo yooyu si nga bokk mm-hmm. Franc mm-hmm. defee na la de waaw mais c'est normal Hmm. c'est normal loolu loolu loolu dama si kontaan bu baax baax di ko félicité. waaw su mbër la. sa hmm. ñoom tamit bëri am bal la. Hmm. Franc nekkul mbër boo xam ne xeeb naa ko wala dara. mu mun a daan soog mun na daan am bal la n'est-ce waaw. comprendre waaye yàlla baax na man maa ngi fi xale bu ndaw laa waaw maa ngi fi pour làmb maa fi pour amateur yi maa ngi fi pour lépp loolu mu def noonu da ko war a def c'est normal mu def ko loolay yoon parce que champion champion lay a daan moom champion la yàlla na ko victoire bi jig xam ne du ko ñaanal li mu bëgg si carrière am yàlla defal seen wax dëgg yàlla ak mobilisation muy mobilisation waa parcelle noonu ñuy entamé nooy ko ba ne kuy champion ak kuy sportif rek si kontaan bu baax baax yàlla na yàlla jàppale seen équipe boobu. Hmm. lépp lu ñu si bëgg rek yàlla suñu borom defal leen. Hmm. arène muy mel chaque jour boobu. waaw mais loolu day baax day baax si làmb. day taaru si làmb. Ah. làmb daal moom. bu hmm. PPV. waaw moom bi day yàq làmb day yàq làmb baax a baax a mais promoteur dañ siy gis seen bopp. waaye boo defee PPV. waaw ba benn heure bi ba làmb di waay cible wala arbitre di waay cible. na mbëri na may nit ñi gannaaw bi parce que boobu ku war a jënd jënd na mhm. ku war a def def na comprendre lamb léegi mhm. da ngay toog sax xam ne ndax combat am na wala amul mhm. ndax pay-per-view waaw ndax pay-per-view dafa yàq bu baax a baax franchement yow sa combat ak Modou Lo dina nekk pay-per-view lees xam nga loolu waaw sama combat bu mun di ñëw nekk Modou Lo parce que mun di ñëw nga doon pay parce que moo xew moo xew ñu si bàyyi xel bu baax baax baax a baax am liñ Nicolas yéen a ngi déggante amoo si benn nouvelle boo ñu mën a wax si moom. muy waaw même boo ma tëggee làmb sax aw ma woon benn nouvelle am. Hmm. moom Zil la doon waxal. Hmm. wala man su ma bëggee wax ak moom Mbaye Diagne. naa doon waxal. Hmm. moom wax ak moom. nit ñi benn yoon. ñaari yoon lañ déggante. ba ku depuis ba léegi. Ah. lan ngay tàggatoo ak moom. waaw damay yàlla bu baax baax. waaw. naan sama naan sama père Gaston. Mhm. ñun ñun nekk nañu koo xam suñu papa ñun ay ay ay guinéen lañ. Mhm. ñu ñàkk ñàkk. Mhm. ñun lu ñu am na dañ koy yàlla bu baax a baax. waaw mooy maa dégg mu ne Ama Baldé bu mu am combat wala bu fekkee dafa soxla xaalis dama kaa yoreel daf ma yoreel xaalis. daf la yoreel xaalis. xaalis dama yoreel. ñaata la la yoreel. dama yoreel 15 millions avance ma 5 millions. waaw ñu dem si avocat mu signé ma dama suturaal ma. waaw. parce que boo dégg bu bu maal ñaar di wax fii di wax fii sponsor bi fay nañ ma ba pare. waaw suñu leen fay mën nañ ma indil problème. Mhm. signal jox ma 5 millions na ma signal. Mhm. Euh, ne euh, ne mel na fay ma après yow mooy loolu. Mhm. comprendre. waaw waxu góor la ma waxoon nag. parce que ba ma ñëw këram. daf ne ma aama ah, sama mag laa sa papa sama goro la. dama takk sa kër dama sa waaw kon yow yow yaa mën a suturaal. ma suturaal bu baax baax. dëgg la comprendre. suturaagu toppeewu ma ko dama ko ko wax noonu hmm. xaalis boobu may naa ko si xol bu sedd guy mais nga ko 10 may naa ko si xol bu sedd wax rek moo indi wax waaw nekkul dama koy ma ko dama koy weer dafa daw hmm. dafa wax ma wax ko waaw dafa wax ma wax hmm. waaye moom bu mu ne ma yoreel ma xaalis yoreel na ma xaalis ba ma yore xaalis ba ko sponsor bi sonalee ba sonal waaw man a akaa ñoo ànd si mu toog avocat am Dakar Touba bu Kaam nag 5 millions laa la mën a jox. waaw léegi yeneen 10 millions yi mën nañ ko dóor dàq. Mhm. waaye tamit nag gëm loolu euh, gëm loolu kii sponsor yi. Mhm. fay naa la. Mhm. ma ko amul benn problème. la 10 millions ba toogee woowaatuma ko ba léegi wallaahi ba Serigne Salim Mbacke ak yàlla bu ma am ndam. ba ma jéemee si bureau boobu laa fàtte Gaston. yëkkatiwaat ma sama téléphone sax ne ko ni mu demee. xëy wax moo indi wax. dina mag yow yaay suturaal sa bopp. dëgg la man dama xale boo xam ne. yaakaaruma kenn si làmb. sama pap mooy Fallaye Baldé mm-hmm. nit du topp jaan di rey jaan mm-hmm. man Fallaye Baldé rek laa doy mm-hmm. boobu ba léegi ba ma dalee bëri ba léegi dara sant yàlla laay def toog naa quatre ans bëri waaye sant yàlla amul benn nit koo xam ne day toog ne ama bale mu ma fëgg ne ma may ma xaalis may ma xaalis soxla ma kenn parce que nit ku nekk dama koy sa bopp man ba saa nit daf may ñëw fëgg ma sama kër du ma yor dara dama ko naan waaw ñëw dem takkale ji jox ko man tamit su ma xoolee sama bopp war maa moo tax sonal ma kenn amul kenn ku taxaw si kaw suuf. Hmm. dama am sonal na ma si xaalis amul. kon 10 millions yi may may may may nga ko Gaston. dégg nga maanaam jour boobu laa la wax. waaw man ak Aka ñoo ànd jour boobu ma ko wanee ginnaaw laa fàtte Gaston. Hmm. Hmm. kon tey man sama àdduna. nekk musumaa tonnate kenn musumaa wax kenn booy xool sax musumaa wax nit ñu ñaaw. waaye tam ku nekk damay am dama am dama am njaboot. am jabar am ay doom. mbooloo kon moom mm. bu mu taxoon ne damaa sonn mm-hmm. moom bu ma sonn moom du ko xam mm-hmm. musuma ko ko gasson may ma musuma ko defal ba combat la mosa tëgg mm-hmm. musuma këram bu ma fa demee làmb moo taxoon ma dem fa bu dul làmb musumaa xam kër ga xaw ma fan la nekk mooy loolu man maa ko doon woo mu may dawloo di bañ a jël sama appel comprendre xam ne mooy loolu mënatul nekk nit ku nekk na yaa di nekk tolof ma nekk tolof tolof tolof di daw naa ne tey yàlla bu ma xañee tey suba dina war ibbil Hmm. yàlla bu ma nangulul tey suba hmm. dina ma nangul hmm. parce que tey lu mu métti métti journée lu mu gàtt gàtt gàtt ay sept heures du matin lañ déggante maa ngi waaw ban heure a jot nii léegi midi jot midi jot bu ah. midi jotee après ban heure a jot heure tëdd day jot waaw kon loo def si journée bi nga xamal loo def si journée bi xam ne journée dafa gàtt àdduna bi dafa gàtt moo loolu rek laa koy conseil suñu papa la suñu lépp la waaye tamit buy dem bay wax si nit nga wax nga fi ngor Mhm. mu toog si internet bi di wax parce que man ngor rek laa àndee moom ngor rek laa ko jàppee comprendre jour ba ma fàtte ba may jox cinq millions mhm. si bureau avocat bi jour mhm. boobu laa fàtte garçon sax ba jot yàlla tey loolu di sant yàlla nag bu baax a baax di gërëm njabootu làmb bi yëpp na leen nag ndaw laa xale laa xam na sama yaram mun na tàng ma wax lu ma wax wax a maa ngi jégg bi ñëpp ñaanal di ñaanal di ñaana promoteur yu bees yu nekk parcelle. waaw dañ dëgg combat Sokh. Mansour Ba wax dëgg yàlla maa ngi leen ñaanal yàlla na leen suñu borom defal jàmm. amiin amiin su ko ba ñu mhm. may nañ cinq personnes. Mhm. may Modou cinq personnes may Eumeu Sène cinq personnes mhm. kon tey lépp xam nañ ni. lépp lu ñu am rek mbëri yi ñoo tax. delloowaat nañ mbëri yooyu cër di leen ñaanal yàlla na leen suñu borom defal jàmm. amiin amiin mbër. boo koy dëgg respect la koy dëggee hmm. gëm ko fonk ko pour làmb mën a dem ñun ñëpp ñoo yem hmm. promoteur da leen fonk hmm. mbëri euh, promoteur fonk mbëri en tout cas ñoom mention sociale daal maa leen ñaan yàlla suñu borom rendez-vous bi rendez-vous bi la euh, rendez bi kañ la man waaw ah maa ngi fi en tout cas maa ngi war a nekk si lu ma war a nekk mm. di entraînement lu ma war a entraînement en tout mm. cas di wax ni yow waaw amul benn bunt boo xam ne dama la koy tëgal sama àdduna xam naa loolu dëgg la dëgg yàlla dana mm. doon exemple dana doon nekk nekk même Ama Baldé bu fekkee toog naa moom dëgg na koy wax dëgg la dëgg na koy posé wax dëgg yàlla ba ma la xamee ba nekk xale ba dégg ba boobu vision boobu laa gis yow boobu ba dara changé dëgg di la ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm mais madame na mën la yaa yoonu France yaa ngi man tamit du mën a wax trop yaa quoi gis naa gis naa gis ngeen lu mu bind si loxo bi non bi dabala ah bi dabala kii maalaw bi sama papa fanlaay bi maalaw seeraas bi maalaw maalaw malo moo am fu mu toll si yow waaw gis nga sëñ bi ku tedd kaa ngi nii ku tedd gi ah. maalaw seeraas ah. madame xanaa moo nekk si kër bi maanaam dinaa ko def. ah li nga def si kër bi waaw dinaa ko def si dëkk bi. Morlo nag foo koy def ah? Morlo. moo ngi tëdd moor bi. ah tëdd moor. ah jërëjëf. <laughs> merci. merci kontaan maa la gën a kontaan. donc mbokk internet Iba Kane TV tey lii laa leen andiloon. amaana bu waxaatee si Iba Kane TV xam naa après combat mu Morlo. signature bi signature bi <laughs> jërëjëf. mbokk internet Iba Kane TV tey moom vraiment dañu am gan bu rëy. waaw gan bu rëy a rëy rëy ñu am vraiment da topp naa ko lu mat euh, un mois xam nga mu nekkoon nag ci combat soq bi ak franc vraiment mu jëloon temps yëpp mu ne ma woon ak nu mu munti demee tamit dinañu waxtaan tey nag mu jox ma rendez bu fii ci atelier wu entreprise Alaaji Mbay ah, tey nag ñu war a def waxtaan bu yaatu parce que bu ma waxtaanee moom fii xam naa dañuy tëj dañ koy bàyyi mu noppalu jël ay vacances tuuti waaw comme ñëpp quoi ah, ama nuyu naa la waaw moo ko jàmm maa lay ziar bu baax a baax Iba Kane mm-hmm. moom na lay ñaanal taw féex mm-hmm. dinañ ñaanal sa site bii mm. suñu borom defal jàmm. ñoom suñu dugg yëpp. amiin amiin yàlla suñu borom la di sant bu baax a baax. Mm. sant a baax di sant yàlla. Mm-hmm. di julli mm-hmm. suñu ñaari waajur bu baax a baax. Mm-hmm. di sant nag rawatina Pikine bi ñu nekk. waaw di leen sant bu baax a baax di leen baalu àq. xam na waaw di ñaan yàlla yàlla fi jàmm sax. amiin amiin xam nga di ñaan jamono Serigne Fallou yëpp. di ñaan sama Serigne Serigne Abdou Karim Mbacke yàlla ko suñu borom defal jàmm. ñaanal Serigne Saliou Mbacke yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na mm. suñu borom xaare àjjana suñu yaakaar tey ëllëg mm. ma di gërëm ñëpp mm. waaw rawatina nag place bi dama fekk muy place Alaaji Mbay waaw ama ko ñaan yàlla na ko suñu borom defal jàmm ñu si bëgg rek yàlla ko suñu borom defal am ah, sa copain Moussa Dioum gaañu loolu nan nga ko dundee woon waaw Moussa Dioum ma muy gaañ nag nekkuma fi woon maa ngi woon si préparation ah. Moussa Dioum mun naa suñu kër la defee lépp wax dëgg yàlla mm-hmm. maa ngi faal ba ma nekkee xale si mbaaru Euh, bañ naa ko da ngay jël dafa jooy jooy métti boobu yaayam sax moo tax mu jénn mhm. maa ngi dégg si na ko nii sa yaay lu mu bëgg rek toog ko si dëgg la dëgg yàlla mu doon góor boo xam ni mhm. di fàllaay mhm. waajur moo tax mu jële ko mu jëlee ko dañ koy yàlla ko suñu borom xaare àjjana amiin amiin amiin waaw dañ koy ñaan yàlla rëcc lu mu doon defee lu mu doon defee si àdduna yàlla na ko suñu borom xaare àjjana amiin amiin ah, ah, ah, euh, keroog tamit euh, sa benn copain génn àdduna si combat soq franc boobu tamit dund nangoo ko dundee tamit. waaw da métti rek. tamit yàlla suñu borom moom kenn du xëccoo moom. dëgg la waaw na trop. tamit mhm. dañuy am lu xolu ñu rek. ñu mhm. waa ñëpp. xam mhm. di di masawu coono seen waa kër. leen delloowaat jàll. waaw boo ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm. fi bàyyi. waaw yàlla na ko suñu borom def jàmm yàlla na suñu borom teg loxo. amiin amiin mu mën a eggaleeg soxoom. amiin amiin dañuy dugg euh, nga nekk xale la moo la dugal si làmb Ama. ak ak ba ñaata at nga commencé yow xam xàmmee takk ngemb waaw lu ma dugal si làmb mooy leen la hmm. football laa ko doon mun hmm. football laa ko doon siibu hmm. sama papa yóbbu na ma ah, pour ma doon mbër waaw ma ñëwaat ma ko def fa deux ans si laa ñëwee na ma a may takk ngemb takk ngemb yow ban ban ah, attaquant nga wala milieu terrain non man kii laa woon euh, kii laa woon militaire laa woon. militaire laa woon laa joué nga kade kade cosaan. non kade si de police laa juddoo rang nag. waaw rang di fois joro fois dem bay waay football la après sama papa ma jël sama décision papa la. Uh-huh. dinaa mujjee doon mbër. dinga doon mujjee doon mbër boobu ñaataat nga am. mu xool boobu ay quinze ans. Hmm. quinze ans quatorze ans yooyu. quinze ans quatorze ans. Hmm. yaa ngi fàttaliwu bi ngay njëkk a takk ngemb fan la woon. waaw moo tëkk njëkk a takk ngemb suñu gudd kër la sondel. Hmm, sondel bii boo ko igri. Ah. moom laa njëkk a bëree tournoi. kan kan sondel. sondel. moom nga njëkk a bëree tournoi. waaw gudd kër ñoom xaaru Sarr. waaw boobu sax du ma fàtte sama ah, papa Bale moo ko doon arbitre. moo ko doon arbitre maa ngi arbitre di ree di ma ree parce que boobu xale laa woon. waaw muy ree ah. noonu. gëmul woon ne di nga nekk mbër xanaa. non gëmoon na ko nag. Ah. moom nag moo doon wax naa leen. Mhm. benn wax naa leen Zil champion la Pathé champion la. Mhm. waaye caat mooy moo moo moo moo uti kër yi bu ma mhm. dawalee 4-4. waaw ah, su ma dawalee 4 Zil ah, kii moo tax bu ma njëkk a am ma jël ko ma ko newu fi gaañ. ma jël may ko Zil Baldé. ma nekkaat si bi parce que wax naa moo ma koy defaral. après bi nga bëreeg Sondel sa su premier combat ak Sondel boobu daan. tournoi la woon. waaw tournoi ay ñoom Bathie Serap ñëpp si doon bëri maa ko daan. Uh-huh. Mhm. ba fan nga yem tournoi boobu. tournoi après tournoi bi noonu dañ doon nii rek. Ah. waaw ah, dañ woon dara. sa premier vrai tournoi nag ban la. sama vrai vrai vrai tournoi vrai tournoi Tëngéej la nag. Tëngéej waaw demoon naa ba final. waaw après nag moom ba ma mujjee toj. ba pare asalem tam bëri naa sos junior bi doon wax tamu gàtt ni tamu gàtt waaw sos junior men oh. waaw kalaam final waaw tam mbapat bi yàqu mbapat bi yàqu waaw jamono yi mbapat yi da doon yàq lu bëri tëgg laa doon ëpp nag lu ma doon bëri ak benn barak ak benn barak nag dernier mois bi laa fi wàcc ba may waay dugg si aaren nag laa combat bu bari na ciow ba leg nit ñi dañ koy wax. wa bari won na ciow moom. won na ciow wax deug yalla ah wa deug yalla ko doon nak luma gëna def mbeur ah bo parce que mom moom booy Guinée ñoo waron bëri. waaw. après ma dugg ci salle bi fekk wara petit cas kon bi dugg ci salle bi. ñu avance cinquante mille. waaw après ma jël ko jox ko sama papa comprendre. hmm si lu ma war a nekk rek boobu jour boobu ma daalé daanee nag laa siisu Ah, dëgg dëgg dëgg nag ñëw sama papa ne ko lan la bëgg mu ne ma bëri jour boobu laa commencé entraînement. mbapat boobu biir ba terrain parcelle la woon waaw koñu Modou Lo. koñu Modou hmm. nga jóge fi ay booru ban heure ay hmm, trois heures. ay deux deux heures. deux heures nga fi jógee la ñu kooku ne boppam cinq heures la. waaw am na suba ñu dem ba ay deux heures du matin doo ko bëri. deux hmm. nga door a bëri ak Modou Lo. waaw mais tamit loolu tam ah, méttiwul la méttiwul waaw ah. naa xiifoon nga de jour boobu. mais banaana yaa léegi naa ah. banaana lu waroon am la. nekkul loolu tax mu daan ma nekkul dara. léegi léegi arbitre siffle am sa bëri nañ nag. waaw bëri nañ bëri xam na tey. Mm-hmm. moom mooy toog naan combat bu gaaw la parce que dama koy nangul parce que man wérante moom nekkul sama mbir. waaw mm-hmm. ma mm-hmm. nekk ba léegi. ban façon jëli bu rëy la la daan nu mu demee. daf ma kii ah, dafa jël sama tànk. waaw ma daw kii mu ah, mu kii ma ku tëxlu ma. waaw daw wër ma ndomb. wër la ndomb. par ma def kàddaa bi. Ah. d'accord depuis ah, rek affaire bi metti la non nekkul daan bi ma metti parce que champion mooy bëre mooy daanu waaw waaye dama xam ne am naa cër si lamb lu mm. bëgg ma dem def mm. kon boobu moo nekk mujjee nekk sa combat am mbapat non mujjul nekk sama combat mbapat après mm. bëre ay nga ay waaye af combat ah, sondel waaw si lu bëri waaw jàng naa si bëri uh-huh. jàng naa si lu bëri wax dëgg uh-huh. ñan nga jour alala Malo Seras wala Fala yëpp ànd nañu. Uh-huh. Malo Seras. Malo yor na bi sax. Malo yor na photo uh-huh. maa ngi xool Malo 37 la ma defar moom la ñu ko defaral 37 37. bi. Mm-hmm. Mm-hmm. foofu nga photo 17 bi. après ñu ànd noonu. Mm-hmm. jàmm gën. waaw benn barak. dem mais combat boobu euh, ci bi si biir combat moom amul coow amul débordement. non amul benn coow parce que Modou Lo dafa toog ba arbitre di mhm. ah, mais instant boobu xamoo woon kuy Modou la hmm. la. ma la ah. mais bu ngay bëree ji Ama la doon woo wala caat départ boobu. départ boobu boobu départ boobu caat Fallaye wala ah, la doon woowee. lynx lynx bii ko paagu waaw ah, lynx bii ko paagu moo ko tuddee benn animal la ah ah, mhm. ah animal la ñu tuddee woon la lynx waaw ah, nga jóge foofu le lendemain nga ñëw wax paa bi ne ma vraiment da nga bëgg jël carrière dimanche lundi bi mhm. laa ñëw na woon na bëgg waa après ma jubale géej la nekk si nekk si boobu sax ñu ngi ma woon entraînement bu baax a baax waaw daw rek laa doon def mhm. bu ma fàttee ama seen loolu ñëpp da ñëw naa ma ñëwal bu dee booy def benn sax na def benn ndax mm. lu mu yàgg-yàgg dina ñëw mm. loolu laa ko jàpp nànk nànk nànk mm. nànk ba yàlla après si nga jëlee benn croix teg ko si Modou loo xam naa def benn benn benn croix daal non dama xam ni combat bi war naa ko ñoo bëri xam ne ba may daan xale rek xale la xale ci xale moo ma jàpp uh-huh. xam naa ne xale moo ma jàpp mu daan ah. xam naa ne kii daan mënu ma di daan mënul moom xamoon naa ko moom xam naa ne moom jour boobu laa xam kii daan na mënul. kii daan mënul su ma demee uti doole. Mhm. nekk fu mu war a nekk du ma mënal dara. Mhm, d'accord